li ci jiital ak Cheikh Mouhamadul Muntaxa président ak kullu murit ñaan sunu ba eggale ko te jiite ko lu yàgg lool di ñaanal itam Cheikh Mouhamadul Bachir mu borom Daarul Muxti xalifa maam Thierno Ibrahim mu ngi siyaare di ko ndokkeel bu baax moom itam ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi te motali ay di ñaan Cheikh Moustapha al Karim sunu borom dolli ko ay leer sa te yàlla taas ci barkeem di ñaan ak di ziare sëriñ Xaadim Mbakke mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Balla ñu ko nuyu di ko siyaar bu baax di ko yàlla ñaan bi yàlla ko sunu borom woyofal lépp lu mu ci yéene ba ko ci jëf rek yàlla na ko jëf ko jëf di nuyu ak di siyaare itam bu baax. alxaaji maam Cerno Mbakke di sunu waajur di xalif sëñ Cheikh Awa Balla eh, moom itam di ko ndokkeel ak di ko ñaanal sunu borom yàggal ko sunu karam tamay ko wér bu baax a maa ngi nuyu ñëpp maa ngi ndokkeel ñëpp di leen ndokkeel ci weeru koor wi di ñaan ni ñu ci liggéey bismillahi rahmaani rahim yàlla na ko jeexal ci alhamdulillahi rabbil alamin te yàlla nungul sunu jàmm yàlla te dencal na te may nu kàttan ak wér may nu itam def koy at yu bare bare bare bare loolu yomb na yàlla yal na ko yàlla def euh, maa ngi ñëwaat di leen fàttali sunu bis bi nga xam ne moom la nu bokk muy bisu alxaaji ko sa Mbàkke astudo di bis bi nga xam ne waajur bu tedd wa Cheikh Mahamadou ak Balla moo ko ci joxoon dëggal wax ko ne ko demal nga toggal ma ay ndogu mu tàmbalee ko woon ci benn gàtt ma ne sëriñ bi daaw bala làqu mu di ko defal Cheikh Mamadou Moustapha ba moom itam ni mu làqu kon bis boobu dafa jub si kon maa ngi koy fàttali bokk taalibe bi yëpp di wax ne itam nag am na nag ak coppiku goo xam ne dañ ko cee def ngir mi mii nga xam ne moo fi jaar di sunu yaakaar di sunu sëriñ di sunu wajur Cheikh Moustapha Al Karim yal na yàlla dolli ay leeram te yàlla tas na ci barke bu Eh, moo tax ñu ne woon ren eh, ginnaaw mbir mi sunu borom daf koo dogal eh, ñu bëggoon ko rek am ci ak coppiku gun ci bëgg a def waaye coppiku gu nag du tee incha allah ñu dundal ndigal li mooy woote gi ñu ci daan woote daal di wax bokki taalibe bi yëpp ci réew mi ak bi tey ñu teew si Sarsara loola moom la ñu bëggoon a woyofal rek waaye la des nag muy wàllu ndog yi. togg gi ak yóbbu gi Daaru Muti ca Serigne Khadim loolu itam incha allah dañoo fa yéene def ko nan ko daan defee wala sax buñ ko mënee def nu kawe nan ko daan defee day ñu def ko euh, kon maa ngi jox mbokki taalib yëpp ci biir réew mi ndax diggante yi dafa xat ndax màggalu daaru ak bii Cheikh Moustapha làqoo daanaka ñaar fukki fan juróom rek lay toll boo xoolee itam bii sëriñ bi làqoo bisu ñaanam bu delsee ba delsuwaat mooy bisu màggalu Sarsara tolloog maanaam ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci sax ramadaanu mubarak daanaka boo xoolee lépp léegi weer rek ak fukki fan la loolu dafa xat eh, moo tax ñu bëggoon rek eh, jéggaleen waaye nag ñu ngi sàkku ci ñoom fu waaye mën ne ci réew mi na nga jàng alxuraan def ay salaatu ala nabi jàngi xasida ñaanal ko sëriñ ko sambake assulloo te yéen wàla ca Cheikh Moustapha al Karim yéen wàla itam mboolem njabootu sëriñ ma daaw bala gépp waaye yéen wàla Eh, njabootu maam Thierno Birahim ñoon fa fekk yëpp waaw ñu sakku daal eh, lépp luñ ci jàng rek yàlla na ñu ñu fa yéene wala fasaale leen ci ñoom ñun suñu borom doole leen ay leer ci basax ci yàlla kon daal maa ngi koy ci réew mi ak ci bitim réew la ca dolli ko tam mooy eh, ginnaaw bis allah dañ ko fas yéene def daal kenn ku ne ndigal lan la ca daan jox ñoom la koy yeesalaat bu baax. ñi ñu ci daan jox ndigal ñuy jox ay nag ñu ngi koy fedd bu baax pour bëgg ñu def ko nan ko daan def ñi ñu ci daan jox itam yeneen ndigal yu bokkut ak loolu itam na ci ñëpp jàpp lépp lu ci waaye doon def daal na ko def ah, na ko bu ko mënee yokk na ko yokk bu ko mënut a yokk na ko def na ko daan defee loolu nag maa ngi koy jot ci réew mi ak bitim réew yëpp ndax loolu lañu bëgg. maanaam def ko nan ko daan defee eh, yóbbu ko ci sëriñ bi loolu bu ñu sañoon moom dara yoo xanaa la ciy soppikuwaat daal mooy nan daan def nag àndante yor ay oto dem di ko yóbbu loolu daal lan bëggoon moom moom itam ñu tege ko ci bëggoon waajal lépp fii Sarsara lépp lu jëm ci kër kilifa ñu waajale ko fii lépp lu ñu yóbbu ci sëriñ bi itam ñu waajale ko fii ah bu ñu demee nag ah, yóbbu ko jox sëriñ bi ak waajal li nga xam ne itam dañ ko daan teg ca buntu mawlud bi ci mbaar mi mbokki taalibe bi mbokki jullit itam képp ku ko aajoo rek boo ñëwee maanaam nan daan def ñu def la ko loolu itam am nañ ci yéen incha allah kon nag moo tax ñu bëgg daal ñëpp jàpp ci waaw lu ci waaye doon taxawee daal eh, na ko taxawee maanaam na mu ko daan defee ku mënut a yokk itam na ko def na ko daan defee te noonu xam ne itam ndigal la nga xam ne Serigne Touba da koo joxoon sunu maam ju tedd jooju Cheikh Massamba Mbacke waxoon ko ne Massamba mu ne Mbacke mu ne ko. na ngeen am fulla na ngeen am fayda mu ne ko fulla mooy euh, mbir mu mën a doon loo ca sori sori sori fu ca lu baax yemee rek yem ca fayda nag mooy lépp loo aada woon di ko def ci lu baax waxtu wa nga ko doon defee bu dikkee lu jamono xat-xat rek fexeel ba def ko kon xam na ne jamono xat na waaye nañu góorgóorlu fexe ba def ko euh, amoon nañu yéen itam nag maanaam màggal ko nan ko daan defee ndax nit ñi dañ ci am yéen maa ngi leen di jégalu bu baax ndax maanaam yéen a ji ci nit ñi am ak waajtaay yi nga xam ne ñu ngi ko doon waaj ah, ko wax mu ne màggalu Sar Sara ndogu Sar Sara ah kon loolu bu ko deful woote nit ñu ñëw maanaam dañ leen di rek ba moo teggal ay coono rek waaw loolu moo tax ñu defe ko noonu waaye kon maa ngi koy jégalu ñëpp. te yoon yemu ci benn olof jaay ko wax nan ko fekk waat ak diwoon ak jàmm rek te tal ko di ko def nag nan ko daan def loolu ko def Eh, maanaam man damay wax ne eh, recul la waaye nag dañuy wax ne reculer pour mieux sauter waaw maanaam dellu ginnaaw pour mën a tëb lu gën a eh, sori kaw maanaam loolu rek la lay doon yàlla na ko yàlla suñu borom nag defe ko noonu waaw ndax xëy na maanaam bu fekkee daf xaw nuru ak dellu gannaaw itam ne dellu gannaaw goo xam ne dañuy wuti doole joo xam ne bu ëllëgee si bëri bu ñu tëbee fan fa daan tax bi yem dañ koy weesu waaw loolu rek lañ ci jublu kon nag yàlla nañu ko ci yàlla defal bu baax a baax a baax maa ngi soññi di soññi waa bitim réew yëpp muy orop muy Amérique euh, bayu muy Afrique bayu ma fenn ñu ngi soññi di wax nag waa Daaru Muxti ak waa Touba ak dëkk yu ko wër euh, ñu bëgg ñoom nan daan teew ñu teew ko ndax maanaam ñoo war a taxaw wàllu togg war koo taxaw itam ba yóbbu ko daaru kon ñoom te maa ngi leen di soññ bu muy daayiru xeeru musalin ak daayira Taysiir Asiir bi soxna Marème Thiam ak Mamadou Diagne jiite ñoom ñëpp ñoo ngi leen di soññ soñ seen Cheikh ak sëñ Naar euh, Sall euh, soxna Anta Baara ñoom ak soxna yëpp daal ñu ngi soñ ñu soñu njaboot gi euh, ñu teel a ñëw te maanaam taxawu liggéey bi ba mu ba ñu yóbbu ko jëbal ko sëriñ bi loolu maa ngi leen soo soññi maa ngi wax itam naarandoy ca Touba di ko wax ne daayira Touba boobu itam na leen soññi ñoom ñëpp nanu ñëw ndax liggéey bi du du maanaam daanaka mën na wax ne dara wàññi kuu ci kon nanu ñëw daal taxaw ko togg ko togg bu baax la ca war lépp ñu def ko ci waaw ñi ne nag dañoo nekk ci ay dëkk yu xaw a sori ah, nga xam ne euh, jégewul sa ñoom mën nañ fa nekk rek ñu def ko daan daje ci penc yi jàng alxuraan dafay salaatu ala nabi dafay istixfaar jàng xasida ñaanal ko sëriñ ko Mbàkke Asta Lo te yéene waale ci Cheikh Moustapha Al Karim ak mboolem njabootu sëriñ Madawa Balla ak njabootu borom Daara Muxti yëpp maa ngi sàkku itam ci fu ku ko man wala ci daari kaamil yi fu waay nekk eh, xat na waaye lu ci waay mën a jàng rek mu def ko ndax benn kaamil alxuraan rek bu ko yàlla nangoo mën naa defar àdduna ak alaxira ndax dañu natt la borom xam-xam bu baax a romb taxaw fa jàng ñett fatiha def ñetti qul huwallahu ahad ñaanal leen yàlla daal di jàll ba nu demee ba ca déwén mu dellu siwaat fa romb fa dégg fa coow lu bare bare bare muy laaj ñooñu lu ñuy coow ñu ne ko kat fii dafa am nitu yàlla bu fi jaaroon jàng euh, ñetti xuloo sarax leen ko moom la ñu séddoo ba léegi jeexagul kon jàpp naa ne donte benn kaamil sax bu ko sunu borom nangoo mën na noo may li nu bëgg tey mën na noo may li nu bëgg euh, ëllëg man naa itam la nga xam ne moom lañ bëgg te sëriñ bi bëggal ko boobu tam Eh, sunu borom defal ko ko ak mboolem bokkam yooyu may wax yëpp kon rek nan koo jàng xam naa lu ko jiitu sax eh, léegi jamono bi moom xëy na eh, ci rajo yi wala télévision yi moo njëkkoon moo daan siwal waaye léegi liy siwal moom léegi dafa yomb lool te téléphone yi yëpp moo tax am na ci ñu bari ñoo xam ne jotoon nañ leen ba waxoon la leen daal wàllu kaamil yi nan ko fonk bu baax a baax a baax waaw ko nag loolu itam maa ngi koy yeesalaat bu baax dama ko daan waxee rek ci daari kaamil yëpp muy muy eh, Darou Manane Touba Darou Manane Cheikh Abdallah ak Sarsara ak fu daara kamel ne mboolem sëriñi daara yi itam nag te nekk daaru itam ñëpp rek eh, ñu taxaw ñoom itam lu ci waay man rek mu mu def ko waxoon naa Modou Kara Diop mu Kara Cheikh Anta ne ko na mu wëral mboolem sëriñi daara yi nekk daaru yëpp kenn ku ne maanaam wax leen lu ci lu ci waay mën a rek mu jàppale no di nuyu nag di siyaare baax kilifa yëpp nag njabootu sëñ Madawa Balla yëpp jabatu maam Thierno Ibrahima yëpp xëy na ku lim da ngay juum waaye maa ngi siyaar ñëpp di leen ndokkeel ñëpp di leen xam ne ren ni ñu ko wóotiwul moo tax defuñu nan daan def dem ci seen kër yi wër leen di leen yëgal bi waaye kenn ku ne ci ñoom maa ngi sakku daal euh, nga def ay ñaan ñaan sëriñ ko sa Mbàkke asulu waaw di delluwaat nag di feddali kóllëre bu baax bokk gi moom yàllaa ko def waaye na kóllëre gi ñu ngi koy feddaliwaat bu baax xam ne ñoom daal incha allah taxalaa li nu fas yéene mooy doon ay taalibe li fa fas itam mooy am kilifa rek waaw ñaanuñu yàlla ñàkk kilifa mukk ñaanuñu yàlla itam ñàkk wéy ci ndigal rek macha allah dañuy am kilifa dañuy diw du ndigal bu nu digalee ñu ñu def nag bu nu tere ñu bàyyi waaye nag eh, loolu itam maanaam liñ ci yéene mooy eh, nan nangu kilifa nag waaye nag ñu ni ñu ni war a yilif rek nanu yilif waaw ñu ni a yilif rek nanu yilif waaw kon ñoom ñëpp maa ngi leen di ndokkeel di bu baax di ñaan suñu borom guddal seen fan te dolli seen xewal dolli seen wërsëg bu baax a baax maa ngi wax itam eh, di ko yëgal eh, maanaam autorité eh, administrative yi tàmbale ko ci monsieur le sous-préfet de Darou Mouti monsieur le préfet Kébémer monsieur le gouverneur de la région de Louga ministère de l'intérieur bëgg ñu jottali na ko itam ci président de la république ndax waxtu yàlla bi daana ci taxaw. daanu ci jàppale booba nekkagu sax euh, président waaw daana ci taxaw daana yónni fi ay ndaw daana ci taxaw bi mu nekkee président itam doon doon kon nag war nañ ko ko euh, yëgal euh, yëgal ko itam ñi nga xam ne ñoo ko fa représenté di ko yëgal nag wala yëpp xëy na ku lim da nga juum waaye damay yem rek ci Fada ak euh, mboolem opposition bi yu nekk daaru mos yëpp xëy na bu ma leen moom itam damay juum waaye ñoom ñëpp daal maa ngi leen yëgal bis bi te wax moom seen bis euh, te lu ci waay jàppee rek wala nga taxawee ko te rek maanaam sunu xol dana ci sedd te dana ko jàpp te duñ ko fàtte mukk maa ngi yoo xam ne dong yi nga xam ne dañoo jaaroon ci daara ji tàmbalee ko ci Koso ba ci ñi nga xam ne ñoo ci suñu loxo doon mujj ñoom ñëpp maa ngi leen di woo bëgg ñu teel a ñëw te xam ne liggéey bi ñoom ñoo ko war a taxaw nañ ñaw taxaw xam ne doon ay gan liggéey bi seenub liggéey la euh, ñoo ko war a taxaw ñoo ko war a toppatoo ba nam wal mu mel ne ndax euh, ñoom nañu jàpp ne daal lépp lu ci waay di def rek ñoom lay dimbali ndax ñoom la war kon nag ku mas a jaar ci daara ak foo mën a ne ci réew mi rek yëpp maa lay wo te ñoo ànd ak seen ñi am ay soxna nan ànd ak seen i soxna ñu ñëw taxaw liggéey bi te buñ ko taxawee maanaam nan ko fexe ba bu ne suba ñu tàmbali liggéey bi euh, bala ñoo delluwaat ci suñu soxla bopp itam li war ci màggal gi yëpp nañ ko def nañ togg ndog yóbbu ko bagage yi nga xam ne itam moom lañ doon euh, jëfandikoo lenn lenn fa mu war a delluwaat mu dellu fa ñu doog a yeewu ko euh, maa ngi bëgg itam nag xëy na ci bis ndog yi wala màgg gi dana xaw a xat waaye maa ngi bëggoon daal su yàlla dogalee maanaam ñu wari ba ca suba sa wala gannaaw suba sa ñoom ñëpp ñu ànd dajaloo ñëw sarsaara dafa am lu ñuy waxtaan ak ñoom ñu waxtaanee ko ak ñoom mooy dong yi nga xam ne dañoo jaaroon ci daara ji ñoo seetlu jëfandikoo. xam naa sax danañ defaat beneen woote ndax euh, seriñ bi def noo jeex ndigal ci liggéeyu sëñ maam Thierno boobu sëriñ Abdou Samad keroog moo ko wax nee na bokk na ko lu ko lu ko sëñ bi euh, mujj wax ci ndigal nga xam ne bi mu ko ko waxee ak bi mu làqoo nee na matul ñeenti fan mooy wax na ko ne kon na ma wax wax sëñ Modou Karaam sëriñ ko sa gànnaar liggéey boobu ñu doon defal sëñ maam Thierno nan ko ko defal ne bu nu ko sëñ bi santu sox nan ko def kon nag loolu itam ndigal la. Eh, kon incha allah rek bu yàlla dogalee ba nu waree jàmm eh, bu nu jàppee bis bi danañ ko delluwaat yëgalaat ko bokki taali bi yëpp waaye nag na ko ñëpp waajal te taxaw ci bu baax a baax nañ ñëpp ñëw ndax ni ko doon waxee rek eh, bu nu joxee ndigal di nu liggéeyloo du suñu jëm rek de bu doon suñu jëm rek kenn du sant dara waaye yéen ñu nu àndal ak ngir yàlla ak jëmi Sëriñ Tuubaa moo tax ñu dina sant liggéey kon nag. Euh, loolu itam maanaam dama koy anticiper rek moo tax ma di ci wax loolu waaye danaa ko gën a leer ba nu fi yàlla bàyyee ba nu weesu euh, maanaam koor gi waaw ñoo ngi koy fàttali ñëpp bëgg ñëpp ci teew ci incha allah tam te fanawoo ko te fanawoo ko kon nag maa ngi sant ñëpp di sant waa Sarsara di leen wax itam ñoom ñëpp daal nan daan def nan ko def nanu taxaw euh, waajal seetal dëkk bi nanu taxaw ca wàllu toggee nanu taxaw ci fexe ba fenn fu ne Euh, la fa war maanaam ñu def ko maanaam fu ko war a yóbbu rek wala fu ñu ko daan yóbbu nan ko yóbbu fu ñu daawul yóbbu te war faa yóbbu itam nan nan ko nan fexe ba mu egg foofu waaw kon nag ñoom itam maa ngi leen di soññi di wax Alaaji Kara Diop ne ko mu soññi dëkk bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw dëkk yi wër sa saara itam nag di ay taalibe wala ay wëllëre ñoom itam ñu ngi leen di woo ñu ñëw ànd jàpp ci bis bi waaw euh, dafa am nag koo xam ne moom boo ko ñàkkee euh, dootal dara. waaw euh, wala boog mënoo koo dara ndax dañuy wax ne naqar ak bànneex moom mënut a ànd waaw loolu moo tax euh, lii bu doon loo xam ne liggéey yàlla la ndigalu sëñ Madaw la kon duñ ci laal dara dara dara waaw waaye nag ginnaaw ndigalu sëñ Madaw Balla na xëy na liñ ci woote ab xumbeen di ñuy ñëw ñu ànd di rajo rajo di dem daaru di dem daal loolu lan bëgg daal tege ko ci teg waaye ni ñu ko daan toggee moom incha allah bëgg nañ koo toggee noonu yóbbu ko kon nag na ci ñëpp góorgóorlu ku ci daan yoroon daayira te daan ko joxe ci ci ci ci ndog itam ñoo ngi lay soññ moo xam ci réew mi nga nekk ñoo xam bitim réew ni ñëpp taxaw bu baax a baax rek waaw man xamale saareen fa li naf si waaw lu waay def rek sa bopp waaw lu waay def sa bopp kon nag nan ci góorgóorlu te fa tax ñuy def day euh, maanaam lépp lu nu mën a def lu mu bari bari bari bari bari bari bu nu demee foofu de lépp lu nu defoon dañu ko xeeb waaw kon nag nañ ko nañ ci góorgóorlu fàggul ko rek waaw ndax foo xam ne boo fa demee doo desi loo fa yóbbul doo fa fekk foofu kat loo ko fàggul lu mu bari bari rek doyut kon nag nañu góorgóorlu bu baax rek te adduna ci la mën a defar alaxira ci la ñuy mën a defee itam adduna waaw wattaqi fi ma ataka llahu daar axira wala tansa nasibaka min addunya nañu jël sa yàlla dafa déglu yonent bi sa ne ko jël sa cër ci adduna waaye bul fàtte sa cër kon nag da ngay def lu lay mën a jëriñ fii ci adduna def loo xam ne itam bu ëllëgee yomal xëyam nga fekk ko kon nag nañ ci góorgóorlu baax jàpp ci ak sunu fukki loxo te taxaw ci bu baax rek taxaw wi maanaam jël sunu ñaq def ci jël sunu doole def ci ba noppi nag taxawal ko bopp sunu bopp eh, benn sikki itam boo xam ne maanaam wala manquement boo xam ne dafa am ci ñun loola mooy ñàkk organisé wu rek mën naa bari waaye maanaam ñàkk organisation ñàkk ay taxaw dana tax lu mu bari bari itam day mel ne du dara ndax du feeñ lu mbir nag lu mu tuuti tuuti buñ ko organiser rek day daal mel ne dafa bari kon nag nanu ko organiser organiser bu baax kenn ku ne daal jàpp ne bis bi yow taxaw yaa ko war a defar su ko ñëpp defee rek maanaam lépp dana baax te yonent bi alayhi salaam nee na an nisaamu nisful xayaat nee soo organiser rek am nga cinquante pour cent waaw am nga cinquante wala kon nag gis na ne organisation yi moom xaw naa manqué ci taxawaay yeeg yu demee noonu waaye kon nag nañ ci góorgóorlu baax bokk na sax ma bëgg a dong yi ñi nga xam ne ji bu nu waree ba noppi ñu ñëw ñu waxtaan ak ñoom pour rek xool ba xam naka la ñuy mën a gën a organiser woo waaw bu allah lépp lu nu yóot danañ ko jot waaw lu nu bëggee def itam a kon nag nuyu ñëpp di di ndokkeel ñëpp ci. E, koor gi ñu nekk di ñaan sunu borom ko wa taala e, mbas me musiba yeeg balaa yi ci àdduna bi yëpp yàlla ko sunu ko fi fépp fu taalum ger takk yàlla sunu borom sotti ndox mu sedd ba lépp dellu ci jàmm sunu borom yokk xewli doole sutura ba te may nu nawetu jàmm ndox mu bari te may nu ak kattan gu nu mën a liggéey te bu nu liggéey ba noppi itam euh, euh, yàlla nañ ci def la nga xam ne moom la suñu borom bëgg génne ci ak yàlla ji la ca des itam ñu jaamoo ko yàlla loolu ko yàlla def waa ci barke Sëriñ Tuuba kon maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp wasalaamun aleykum taala wa barakatu